Hmm. wa sunnanuhu ay sunnay njàpp xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal koo ay ni ba ci ñaari tiw jara inda shuroo yi fa ngay tàmbali loolu sunna soosu mooy jëkk moom wal madmadatu ak galax ndiku mooy dugal ndox ci gimiñ ak goj-gojal ko ak yàbbi ko loolooy xaqiqa madmadatu lafs bi jëf ji la nirool madmadatu goj-gojal jooju nga koy def dégg nga fa yuqaalu tamaddada boo fekkee ndox mi dugaloo ko ci gimiñ gi wala ba ko ci dugalee da nga koo wann defuloo sunna soo ko wannul dugal ci yebbi waaye goj-gojaloo dooru yebbi amuloo sunna si dalax idxaalul maai fi lfammi summa xadxadatuhu summa majjuhu loolu jëf yooyu moo tudd mad madatu sunna wala istinsaaqu ak sarax ndiku xëcc ndox mi mu wii ci biir bakkan wala istinsaaqu saaru ak fiiru maanaam ngëb bakkan bi ba bunt bi xat nga puus ko doole salté fettax génn wa raddu masxi rasi ak delloo masa bopp mu jóge ca ndongo jëm si ci jë wa masxul udunayni ak raay ñaari nopp yi biir ak bitti biir bi moo féeteeg lex bitti bi moo tafu ci bopp wa tajdidul maa i ak beesal ndox mi maanaa tooyalaat loxo yi lahuma pour raay ñaari nopp yi yaa nii te fekk tooy tooya nga fa de lu dëgg bu fekkee loxo bi mënoon na masaa ndax wowul waaw kon mën nga cee am sunna sunna braay waaye kon nga dese beneen sunna soo ko tooyalaatoon occasionné nga beneen sunna ñaareel soo ko tooyalaatee masa sunna masa si def nga ko am nga nga ne lu tooyalaat muy ñaari sunna waaw nu dëkk nag ndax dañu wax dugal fi suñu waxi bopp ni te fekk tooyaay des ca loxo ba loolu téere bi wax ko xam nga di ñoo ko waaw kon nag bu fekkee mafhumu loolu bi bu fekkoon bi nga maase masa sa bopp ba noppi noppi yi des loxo yi dafa wow kon mel ni mus musta tooy ah, kon luy am nan ngay amee sunna masaanoog doo mën am sunna benn te tooyaloo kon foofu kenn du musta tëj dii du eh, eh, maa i mu nekk sunnam ñaareel kat ndax benn bi munta am te tooyaloo loxo ndax loxo bu wow moom kenn du ko masa xanaa ci tiim te tiim sax da ko laal ci suuf si Hmm? wa tartibu ak jiit lante bi war baynal faraidi diggante ay faratay jàpp kanam jëkk tànk mujj ak ni ñu tartiboo looloo tartib bi sunna la ci farata yi wa man nasiya ku fàtte woon fardan ak farata min kon insha allahu rabbi ñu taxee foofu dars bi di ñëw ñu continuer wa man nasiya fardan min aadaihi allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad